dund naa ko dundaat ko dundaat ko mais euh, c'était comment c'était. ah xam nga xam nga voilà yow am nga expérience bi. Uh-huh. donc pour wax ak yow di nga di nga di nga mën a am ay ay repères xam nga xam nga loo xamul. cest que ñu jël la rek benn jour dugal la ci euh, foo xamante ne euh, yow mosoo dund maanaam situation yooyu. Uh-huh. Euh, ci biir am métit mais ci biti aussi am métit. Uh-huh. parce que fi gën a métti sax mooy njaboot yi ak ni ñu lay xalaatee ni ñu lay bëgg a taxawoo ak situation bi ñuy nekk parce que quelque fois nga leen di mën a wax woo téléphone quelque fois lañ leen mën a gis ñu nekk ci situation bu méttee méttee méttee ma je peux donner l' exemple de ma mère bi nga xamante ne dafa toog ne ma tant que yaa ngi ci kaso bi dama dem sama rendez-vous médical ba toog ba fan yéen di mujj dafa feebar feebar feebar yu commencé jéggi dayoo quoi man dama hmm. mujjee benn jour woo ko di ko supplier ne ko man maa ngi dund kaso ba léegi auma problème

Mm-hmm. tey seen business ñoom daanu na. yaa mm-hmm. ngi dañoo briser nit ñu bëri am ñoo xamante ne aussi euh, fañ nekk am na ay feebar ñu fa contracté parce que xam nga mm-hmm. am na jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne mi ngi am foofu. mais bu dara aussi nit yoo xamante ne peut-être bokkuñu éducation bokkuñu ñuy màggee bokkuñu leen fa indi parce que ñun ñi nga xamante ne ay détenus politique lañu woon bokkuñu ak ñoo xamante ne ñenn ñoo xamante ne. dañ leen fa teggandikum mais am ñoo xamante ne ñoo def am ñoo xamante ne defuñu. donc ba léegi façon détenu yi bokkul même autorité wu euh, prison bi doon nañuy wax ne ñun dañoo am problème parce que qualité de détenu bi am légui en majorité ci ci ci ci ci ci bi dafa naqaree gérer quoi parce que il faut mu am ben protocole booy teg ak ay susceptibilité yoy gérer. Mm-hmm. bokk la ñi nga xamante ay defkat lañ dañu def lo xamantene ne mo moo leen indi fofu nonu traitement bi don am ak légui nit ñu respectable ay chef d'entreprise ay tel ay tel yo xamantene ne seen loxo dafa set mais liñ def moy juste am ay propos yu tenir ci ben pouvoir politique en face d'un mm-hmm. pouvoir politique bo xamantene bu ko ñu indi leen fofu donc situation yoy yep dafa tax. Euh, foofu non nek lo xamantene metna te xamuñu ko won et puis nekk faak ñun comme ñun ni suñu classe yi nga xamante ay responsable lañ foofu képp ku am problème si ñun ngay ñëw di wax absolument ñun ngay bind ay kayit ñun ngay ñëw di ñu wax et puis pression bi day yokk dañ tëdd guddi sax nga yaakaar ñu ngi nelaw mais nelawuñu donc on vivait ça très très très difficilement bon mais yàlla def na alhamdoulillah quoi en tout cas même li ñu génn ni sax

sunu nos sunu rakk yi ñu quoi. donc mhm. c'était moins dur pour nous quoi. c'était moins dur parce que psychologiquement. on était préparé voilà. Ah, parce que bon y a dugg ci et puis ngeen am ay adversaires yoo xam ne jomb ñu woon.